bi ñu jëm ci grand combat bi Lagondong ak ki nga xam Sam Sam Sam bismillah ñu xool promoteur yi alfali da taxaw Lagondong bismillah ana Mor taxaw leen

saw saw ziare eh, delloo ziar bu baax a baax a baax ngi am jàmm si jàmm bu bëri alhamdulilah ya, ana waa Palma ñëpp a ngi si jàmm ñëpp a ngi si jàmm alhamdulilah yoon ak ñi lay seetaan ak ñi nga ak wax sa adversaire eh, ngi nuyu d'abord sama wa kër mam, mam El Hadji Ibrahima Sakho naan Ibou Sakho di nuyu waa kër Diallo nga ne samay cousin lañu ñoom Mamadou Ba di nuyu tamit ñoom Toubacouta ñom sédé surtout les champions d'Afrique Moussa wax dëgg parce que suñuy naataango lañ dañ leen anda ak suñuy suñu suñuy naataango palmaré ñom so Sodé sar ñom Cheikh ñu def regroupement inter donc ñu leen di jappalé ci côté bobu di leen nuyu au passage ak champion yi fi nek yépp di nuyu Souley ak Alpha vraiment di rafetlu initiative bi di nuyu Ousmane bi nga xamanteni mom la andal muy sama lepp donc di nuyu sama natango la gandom diko ñaanal jamm entraînement yi bu ci am ben rek-rek ba yalla indi ko ci bes ba incha allahu rabbi ma daan ko bu set dem ñibbi palmarin guddi guddi palmarin incha allah. laga laga jige si alfa génn tuuti laga jege si ma laga laga yow li nga téye nii ñemewu ko de laga ziyaare naa. laale bu ngeen delo ziaré baye yam jam sentu bu ana wa jaxaw. waaw Diakha kañ la Niakhar kay. Niakhar arrondissement Niakhar laa bokk. ar ordinateur ñoo bokk benn arrondissement. yéen waaw mais xam nga man lamb dóor laa doon bëri moo tax ñu may jabale quoi jaxaw quoi. côté yooyu ay bëre dóor lañu xam foofu laa doon aw rek xam nga man moom yàgguma ci simple. waaw maa ngi nuyu waa jaxaw yëpp di nuyu waa Niakhar nuyu waa Bawol yëpp Diourbel boo Jolof maa ngi nuyu ñëpp nuyu waa ñoom Baato waaw sama nijaay foo lañ nekk fa laay fréquente presque borom bu fa laa ko jàll nuyu waa Gambie maa ngi nuyu ñoom ñëpp waa Ziguinchor di leen waa Ndoyeen fi ma jóge nii waa Thiès ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu nuyu waa bu baax waaw surtout waa Kër Sène ñoom Sélé waaw moom ngi leen nuyu bu baax waaw ñoom maa ngi leen di baax a baax di nuyu waa Ndidoor yëpp fi ma dëkk comme mooy sama cosaan di nuyu Souley di nuyu Alpha nuyu nag euh, bon bu war a bëri Samsam waaw suñu déggee champion yi nekk fii ci zone Mbour bi yëpp ndax du waa campement kese ñoom Touba ak ñoom ñëpp waa Mbour yëpp ñoom Bakala waaw grand champion bi l'homme des trois générations dama koy nawloo chaque jour léegi laa doon wax booy Bakala moom moo ko Seydou leneen la quoi waaw ah, maa ngi nuyu ñëpp daal. loolu am na solo mais dama bëggoon nga ñëw si combat bi lu la booleeg Sam Zamzam li ma booleek moom maanaam promoteur bi man ndax man xaw ma woon Zamzam bu baax mais promoteur bi xam na ko miin na ko waaw ak li ma yaakaar ko proposé te man moom xam nga man moom bu ma proposé gaynde xam ne wóor na ma ma ko war koy mbokk man moom xam nañu man amul lu may arrière. fréquenté naa bëre d'or fréquenté naa bëre simple def naa quatre-vingt-dix-huit drapeau bëre d'or poussière bu poids quatre-vingt-dix-huit yoo xam ne yëpp bëre d'or la mu am cicatrice. barki rasulullah mbër bu ne na ak moom ñoom Malem ñaan ñoom ñàkk jiriñu ñoom sakal gars yi yëpp ñoom hôtel Dior ñoom digal ñoom jara ñoom na ak ñoom leer laa lay wax nii man ah. waaw yàlla baax na yàlla nañ yàlla boole ba ñu daje waaw jour ba rek ñu ñëw ci jàmm ba rek jàmm ñibbi lamb moom noonu la waaw man moom bañuma kenn man ku ñëw ñu bëre ndax ñun bari ñoo mën a mante xaalis waaw man mom non la mel uh-huh. sam sa way lim wax ba ki ancien ah, na dama ko yóbbu rek de ko ñu muy tudd ñoom malem na ñoom jiw ñoom jiw ki dem na retraite di ah ñaan ni finalu nak sama rak may eh fale arène adrien senghor lolu 2015 la té lam bobu la ko gi jagi sun boré ki bu nekké génération bobu ki xana rek la bu mayo bobu mais du nee moom dafa fréquenté bëre dóor fréquenté bëre simple xam na mu ñu boo xam la sa la ca tegu du ma ci yeeg léegi yow loolu ndax tiitalu la laale laaj. su lay may laaj walla nga laaj ma ñoom Zamro je suis champion d'Afrique de judo donc di jaaxaluma lamb ay médailles dugal YouTube nga tapé sama tour bi nekk sama carte d'identité malheureusement nag tur boobu du sama tur parce que damaa jàng daara ba pare. ñu eh, indil ma ay kayit ko xamanteni dafa def jugement yoyu la jangé ba ni bu buggee ma jox ko sama kayit carte d'identité mu yóbbu loolu la yaakar mom loolu la yaakar man technique compétition loolu la xam loolu la yaakar mystique déedéet na entraîner li des ci semaine mi na entraîner dé ki dina ko yobbu ardo ma la ko wax retraite <laughs> dina ko yobbu retraite retraite la jëm de ah.

damaa ne xale di leen seetaan man drapeau bu ne benn yoon laa ko benn at laa ko def Kouzer benn at avec 17 drapeaux ci benn at bi raw gàddu ma def ko avec 23 drapeaux li ma lay wax nii boo ko weddee nga laaj ko keneen. te bàyyi naa bëre dóor bi ñëwaat leen fekk leen si bëre simple di leen daal wóor na laal yoon mi daaw maa ngi doon final fi mu laa ci kanamam. amul fu ma final di am final naa ak Samba laa fii Dakar mu gis ma lay wax nii leer laa lay wax. lu leer ji nag man du nekk fii di wax ay wax yu bari yoonu yaa may yóbbu ardo waaw d' accord yaa may def lépp d' accord judo ak lam bokkul man jaar na aswa xam naa lu nekk ci judo saalu bi ñoo ne ba lu saalu bi ñoo ne bi laa nekkoon ivoirien moo ma yoroon xam nga ko bu baax bu nekk aswa man lépp xam naa ko man garde rapproché la jaar naa ci loolu yëpp jaar naa self défense bu cafétéria yarax li ma lay wax ni yëpp xam naa ko man mënoo ma napp man xam ne damaa yàgg di dox di dugg fu ne man bu ma doon dem ci lamb du ma ànd ak kenn fu ne dem naa fa ba ñoom baata final naa si moom jën daaw ñetti nag li ma lay wax nii boo ko wetee foo dugg nga laaj la man aw ma fu ma demul ci lamb fii ba si Ziguinchor dem naa fa ci lamb daaw daanu ko daanu naa ko demi final ci lamb aw ma li may xalaat ci lamb sa kaw laa jëm leer naa la wax te njool muy buub la de li si gën a danger nag te am ndaama nga looloo ma jaaxal judoka kenn du ko bu bu nekkee door mu ngi foofu self défense la wax na ma naaj su nekk maa tey je suis avec tous les directeurs du port Cheikh ma la ko de dina la buub la dóor nga daanu ma buub la Cheikh bu ma la dóorul nga daanu buub la ba mujjee si Mountaga kii du doore kii booy booy Kaza bi ma koy yóbbu boy kaza mo ko dor mu daan te man mayo ko boy kaza mbor mosuma kooku sama boy la. mbor musuma dor ma daan sama boy la mbam bu muju Dakar arène national boy kaza moo ko daan. mbor musuma dor ma daan combat bi la Lion tapel nga xol boy kaza mo ma daan mais dor mu ma li la tan sama boy la. li leer la la man bii mooy sama sixième combat. di na ko daan bii moy sama 6e combat fi ma jaar mo gëna metti yow fi nga ne. je suis six. championnat championnat du Sénégal six fois. drapeau université laa doon jógee. waxal waxul lamb nga bàyyi studio bi. ma ne. bàyyi studio bi nga waxul lamb. dangay ñëw xam nga il faut ñu dégloonte. ma ne nekk nii damaa jógee université di jël ay lamb palmarès ba ñu aj ma parce que boobu ñoom edu ñoo fa nekk ñoom edu bu ambulances xam nga kooku booy la. ñun ñooy samay naataango. waaw waay Panga xam nañ la. dégg nga li ma la wax. Panga yow dañ laa bëgg a delloo. kii jugement la def. Adama Adama Adama Thiaw. boo buggee léegi Adama Thiaw jugement jugement jugement la def. boo buggee léegi ñu def jooni jooni. ñoo la jox carte d'identité nañ. waaw. bu leen yàq suñu combat jël na waa Jaxaaw waa Fatick yëpp bàyyi ma ñëpp séeréer yëpp maa di woo kii day filmé bàyyi sama combat ne combat koy indi fop séeréer indi funda jom naga de moor in bago citra xaalis kam naka fo tolli mobilisation bi waaw mobilisation bi lu leen waxatuñ ko man yàgg naa ci mobilisation bi sama sixième combat nee na jaayoo bi sama sixième combat amul problème man li jaay ni di nga gis ci stade bi xaalis bi ci sulay la ci waaw sa xam na jaay ah. prek la fi lay nekk dina mbay naan dégg olof ñu kenn xam man dégg olof séeréer la ah. man dégg olof garaawul loolu dang may tagg sa du saaga dang may tagg man dégguma olof baax maa doon séeréer. mais yéen ñaari intellectuel ak ma nekk nag français man moom dépassé naa vraiment. wala français ba sonn sonn naa ci français wala moom vraiment si. saa yi bàyyi mooy wax séeréer maa ngi woo waa Patar yëpp di woo autorité fa nekk yëpp di gërëm Souley di gërëm Alvan di gërëm ñëpp waa ñoom ñoo ngi gërëm bu baax waa presse yëpp waaw jiw ma waaw ñu ngi am bëgg nag ñu ñëw def ko ci fair play waaw lii li ma gis nii léegi ngeen bàyyi ko to ñu ngeen ne lamb nag laajul loolu quoi waaw mun nañ ñëw xubal kërëb kërëb mais nag daa am lu mu war a demee quoi discipline avant tout waaw ñu ñëw def ko ci fair play waaw ku yàlla may ndam nga xam ne loolu la ci barke borom Touba maa ngi joom waa doomu Serigne Touba yi nga xam ne ñoo fi nekkal Serigne Touba ngi leen di gërëm waaw comme ça waaye nu ko waxee rek dama déglu la loolu moo tax waaw gidma fogo ne seere fop gidma nuun fop gidma mbi ngar na jam yasam dalal boy ngaro meke in fop ngatoyo meke mbi ke remplir contrat in ngadoyo i combat ne koy am ndox ndox fee tërëb ko rek ak ne restu ngoona waaw faa e góor góor koy boo wone ma gari ina ko lii lay wone oui jërëjëf sam sam yow tamit dugal ma palmarin ngalo jaha noor ba ngéej mobilisation mobilisation bi xam naa est-ce que stade du ñu ut beneen stade bu gën a parce que liy waaj palbare ngalu jifeer jaxanoor petite côte bi parce que man mbuur laa jàngee kii nii ma àndal li mu mobiliser mbuur mun na ñetti liggéey yi bu ma ñëwee du ma ko delloo tigi waaye kii jaayagul vingt tigi amul ay supporter amul supporter légui nak moom ma ngi wo waa Petite Côte parce que ñun ngaay xam nañ wa Mbour wa Dakar Parcelles Assainies bi ma dëkk wa palmaré Ngandu Sam-Sam quartier yépp woon naa leen ñu ñëw wa port autonome de Dakar bi nga xamante ne foofu laay liggéey donc maa ngi leen di woo ñu def mobilisation bi ñuy waaj nii nañ ko def

kii ah mobilisation bi de moom xam naa maa koy ëpp mobilisation c'est sûr et certain du jaay sa vingt ticket xanaa autorité yi muy téye ñu may ko ay dix mille quinze mille yooyu voilà mu ñëw lamb bi nag du ñu dem fenn ay mystique yooyu du ñu jàpp parce que comme ni ma la waxee rek waaw bu buggee ma jox ko sama photocopie carte d'identité mu dem comprendre nga mais demuñu fenn entraînement la ñu dem ak suñu technique ñëw daanee ko loolu waaw ñun suñu maam a ngi fii fii lañ ko suur yal na ko yàlla yërëm maam Ibou Sakho donc am na lu ñu def ñun voilà lii daal xam naa ne mobilisation bi yàlla ña ko eh, may jàmm ak salaam ba mu ñëw

bon dafa mooy lancé euh, ci li xew li xew léegi euh, di leen ñaaxaat ci côté boobu rek parce que xam nga aussi euh, buy demee nii te pare bu ñu ak waa ak waa campement buy demee nii tey bu ñu bëggee jël beneen mbër jox ko mbër bi rek campement ay ay ay difficulté pour taxawal combat boobu. te naan kii bu ko jëlee boo demee violence yooyu donc ñu ñu bàyyi xel ci loolu ba prochainement daal vraiment mu mu bañ a am quoi. combat bi rek histoire la.

donc histoire la entre Palma ak Niakhar. loolu tax mu dé mu demee nii. dina neex dina sax jërëjëf. voilà ñu ngi voilà ñu ngi gërëm ñëpp aussi di leen gën a sant yéen gis nañ liggéey bi. vraiment di la ñaanal yàlla aussi si sa site bi nga yor dem ba doon télévision te eh, dara jomb la parce que gis nañu liggéey bi eh, def bu baax di aussi di waa Palma waa commentaire soi ngay wax yëpp ah di wax nag bés bi seen journée la ñoo ko moom di ñaan ñëpp ñëw ci jàmm ñibbi ci jàmm ah que le meilleur gagne quoi loxo ma xool <laughs>